ay ci jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bii di fekk TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaloo waat ak yéen rawatina tey champion bi nga xam ne moom la ñu seet si tey muy xale la boo xam te ni yaakaar naa ne naam bi mu duggee ci làmb yàggul waaye fexe na ba marqué ci emprenam ci jom ci fulla ci fayda tey ñu war a waxtaanee moom lu bëree bari gars yi gëj koo gis fu mu nekkoon préparation yi lu ko dugal ci làmb yooyu yëpp nañ ciy waxtaan mbër maa ngi lay nuyu di la ziar du xóor ngi lay nuyu di la ziar salaamaaleykum mbokk àdduna bi maa ngi leen ziar ku nekk turam ak santam di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal Makane yow mi invité fii di ziar sama gaay yëpp ay ñoom Sora Folo ñoom Alice surtout sama jarbaat laay takko sonn na si trop lii bu amee rek moom la waaw di ko sant di ko gërëm moom mi tuddee moom mi mi ma tuddee boppam moom mooy doxoor numéro 2 di ko jaajëfal lii bu amee rek moom la moo jël alalam def ko si woo ma ñëw waaw di nuyu sama gars yi nekk sama ginnaaw yëpp waaw su ma limee rek damay juum waaw ñoom ñëpp maa ngi leen ziar bu baax a baax waaw di nuyu sama mbokk saraxule yi tamit waa Madina Njaaj bi waa Yëmbal waa ñoom ñëpp maa ngi leen ziar su ma limee rek damay juum temps bi moo xat quoi mais buñ toogee fi di lim rek dañuy bañ nit ñi di wax waaw. ñu gëj la gis ci làmb lan moo la dugal ci làmb ak lu waral pause poose bi toogaay bi lan la. waaw lu ma dugal si làmb. amour la quoi parce que dañ doon dem gars yi di bëre ñuy dem suñu koñ amul mbër may bëre sama gars yi di ma jël fi di ma yóbbu may foo benn benn di dem bu ñu demee ma daan di ñëw su ma ñëwee ba pare ñaama booy comme que mun nga lii te say morom rek lañ nekk si làmb yi daf ko quoi boobu tamit benn grand moo doon jàppale quoi si moom lañ nekkoon muy bisis bisis bu jaxaay moom mooñ gën a lu tax ñu dugg si làmb waaw tey nga dugg ci làmb commencé bëre jékki saa yi nga def pause lu waral pause sa toog bi. waaw xam nga loolu dama nekkoon si ay dynamique yoo xam ne macha allah waaw mais benn moment bi ma dem boo xamante ni ay ndog-ndog dal ma quoi mais di ko sant sunu borom bu baax a baax. waaw di ko sant bu baax a baax comme que maa ngi toog nii rek di wax commencé waat nekkaat samay entraînement sant yàlla bu baax loolu moo ma téye woon waaw mais du dara. tawat la woon wala lan la lan moo andi woon ndog-ndog yi. waaw tawat la woon tawat la woon franchement parler waaw. am la moo trop franchement parler mais sant yàlla. tawat bi la la dafa jég saay rek dal la wala lu doon waaj la benn benn wala. waa noonu la fa demee da doon waaj par benn benn saa yu ma xëyee sama benn côté bi mooy métti tu vois ma xëy muñ nag di soox mais di santaat sama copain Alice parce que kër yu baax yi moo may ja mooy jël alalam woo ma ñu dem. bu ma toogee nii ba tey mi may wax nii wala may nekk sa entraînement grâce à moom waaw jàpp na si trop sant yàlla bu baax waaw. kon daal mën jàpp du xool li ko doon metti lépp ci yaramam daal léegi impect waaw léegi moom macha allah moom alhamdulilah lépp normal la léegi waaw. tey nga ñëwaat ci làmb fekk fi ay yeneen booy yoo xam te ni say morom lañ nekkaat ci ay dynamique de victoire am solo tey nga war a ñëwaat ci làmb retour bi nan la war a doon. ah retour retour retour bu neex lay doon barki yeneen bi lu ma manqué woon rek am naa ko bis ni mooy lan. mooy manqué woon naa staff bu baax manqué woon naa ginnaaw te mbër bu ñu ko waxee mu foog mu am ginnaaw ak yoo xam ne caay-caay mbër léeg la gën a yokk waaw loolu ma manqué woon mais amaana ñu may daan mënuñu ma sax mais daa am lu ñu ma ëppalee rek waaw alhamdulilah ñi ki moom balaa ñu lay xam rek nga nekk si ay tollu tollu boo génn si boo si génnee ngay doogo a xam quoi. sa dernier booy bi nekk jàmm gën nu mu tudd xaw ma naan moom nga ko bëreel. boobu sa Bas Ndiago moom a daanoon quoi boobu yàgg na sama premier combat bi la deuxième combat bi kii moo mujjee daan doomu kunun waaw. tey nan nga war a mën a ñëwaate ci wàllu innovation ci wàllu retour bi ndax retour bu saf sàpp la yi bëgg. waaw lu la lu la métti woon rek si ñàkk mun a fecc bi di ñëw na. Hmm. lu la métti woon si kii si wàllu mbëre bi na. lépp ñëw na instant moo tax ñu pause toog di xaaraat parce que chaque làmb dañuy dem sax di bëre di bëre lu neex ñu dangay maye fekk alal ko du loolu yàlla ñëwul rek parce que man du ma entraîné ay at at ñëw si làmb ñu may daan ñu ma da ngaa maye. amaana sunu borom moo mayul rek di ko santaat bu baax ndax daan na ma may muy neex bu ma xañee rek ma xam ne mooy loolu quoi. sa defarwaat ci làmb ndax ñu bari nee nañu saa boo dëngalee takk ngeen mu sa xel dafay dem ci Modou sa digganteeg Modou waaw awaara moo Modou bëgg la moo tax ñun niróo ma moom quoi saa yi ma takka ngeen moom dañ naa ma Modou Lo moo nekk nii Modou Lo bu mag waaw franchement parle mais musuñu musuñoo gisee musuñoo kii nii waaw. combat mi bëri damay dem stade même yu muy def euh, parcelle sax damay dem waaw. lan moo la gën a neex ci Modou Lo ko doon roy. non amaana yàlla ndurale ay niir rek Modou Lo lépp a neex macha allah gisoo insi bi sax dañ la ma yéen ñaar xaw ma ka ma si fekk sa morom si wàllum ibaadu quoi amaana man nii laa mel quoi dama calme xam nga mais bu ma duggee biir géewu rek ma ñoŋal. Mhm. promoteurs yi nga xam ne tey dañ lay bàyyi xel tey toog di la seetaan ndax Fekke TV yaakaar naa ne àdduna ñoo koy seetaan lan nga leen di wax ba xam pare nga ak mafia bi ndax dañuy xam ci wàllu mobilisation dafa am solo ci làmb ah alhamdulilah lu mbër yi amul de mbër yu ndaw yi amul de man de yàlla may na wax luy muy mobilisation parce que man làmb bu ma mënta dem rek damay mobiliser waaw ndax waa yëmbal dañuy ñëw sama koñ waa Tivaouane Peulh dañuy ñëw waa Kër Moussa waa Pénitence ba waa Jaxaay ñëpp ñii dañuy juge ba village Madina suñu dëkk Madina Njaay bi di ñëw kon yàlla may na loolu tey war defaluma leen dara ñoo jël seen alal di ñëw di di ma seetaan ndax loolu lépp lu ko war a mooy joxe cër quoi jox leen cër gisa booy taxaw nii ku nekk daa war a xëy mais bàyyi na ko ba mu yéegee nii ñëw ñëpp taxaw nii waaw. kon ubbil nga yi seen i porte non instant kay pare naa moom wax dëgg yàlla. combat woon tey tey pare nga. Eh, dina du pa du pare du préparé day pare man ba ma pare yàgg na. billaay wallaay man amaana chaque jour damay pare chaque jour saa yu may doxit boo ma ne taxal ñu maye ko ñu maye ko waaw. tey ñu nga gëjaat ci làmb am ay booy yoo xam te ne ay espoir la ñu nekk xale tey nga ràññee ci ay quelques booy tey boo ma doon limal booy yi nga gën a ràññee tey ci làmb ci jamono yi ni ñan la. waaw làmb ji boo fi nekkee di lim ay booy sax da nga leen di may ay code parce que dañ naan booy bi defu fi dara wala mooy kii amaana du loolu lamb làmb yoo nekk suñu biir dañoo war a bëre. tey am te nga ko bët jëfee ngir bëgg a bëre moom. parce que su ma limee naan booy bi laa bëgg a bëre day yaakaar daa am fu ma ko dugal ba pare moo tax ma koy lim quoi mais du demeewul noonu mais su ma limee rek mooy loolu noonu dañoo war a laale te retour bu may def incha allah xam naa ni moom day na neex dina yëngu. Mhm. mais tey amaat ay boy yoo xam te ni ñu ngi ci làmb tey di prouver ñu baree baree baree tey làmb tey ba doon gis ay boy yoo xam te ni ñu ngi def jéego ci làmb tey ñoo xam te ni tey gis nga leen ñu marque empreinte yu sore sori ci làmb tey ñan nga may limal ci ay quelques yoo xam say génération la ak ñoom génération ñan nga may limal. waaw boy yi may lim si moom mooy loolu noonu tey tey dama am benn boo xam ne loo xamante ni képp ku ma daan rek bëgg naa jëlaat sama revanche parce que jom boobu noonu dafa nekk si man. jom bi moo yore moo tax boobu ba léegi ni ma lelu di defaraat parce que tamit metti na torop ngeen dem ñu yaakaar la làmb ñëw benn ins bi nga nekk si ay tolof tolof te mooy loolu te boo yi may singali nii nii yàgg yàgg la ñuy bëre. ay booy xam ne ay lañ tey ñu mel ni journée suba bi rek jeex jàmm ak booy joof foofu bari na say espoir yoo xam ay xale lañu ay naataango ngeen ci làmb. waaw loolu dëgg la parce que ñooñu ñëpp ay génération la amaana gën a gën kii la rek am luñ ma jàppale rek gën a ëppale jàppale la moo tax mais ñoom ñëpp bu buñ dajee moom franchement parle dina neex ni dina yëngu ñun ñëpp ay morom leen journée suba si incha allah rabbi dañuy dem esat dañuy dem yëngal wàcc suuf parce que il est temps ñu wone ñu pare neen quoi waaw. tey boo ñu mobilisé di wàcc donte amagoo combat ñu ngi ñu ngi ci préparation bi ñu ngi wàcc ñi ngi génn seen fukk ñi di génne seen ñaar dërëm di ko dajale pour nga am combat tey loolu lan ngay wax booy. Ah, bu baax. parce que booy yëpp yoruñu parce que loolu moo ñu manqué fii ñun jaxaay fii manqué neen ay autorités yoo xam ne ñuy jàppale franchement parle booy ñooy jël seen cent franc seen kii ñëw dajale ko di defar ay tiset ay car makan yoo xam nga yow promoteur nga woon yow samay combat tëggu nga ko ticket yi ñu ma doon jox pour kii yëpp sama xaalis moom lay jox booy ñu si dem booy amuñu ku lañu dimbal ñoom ñooy jël seen alal di ko si def waaw di santaat Soro Soro jaakal soow Soro moom borom baax la moom Sora follow suñu MC bi laay ak laay laay tàkkoom yi ay ñoom Tidjane ñoom ñëpp waaw. booy ndaw yëpp bu ma limee rek damay juum parce que ñoom sonn nañ quoi booy liggéey ñu amuñu dañuy xëy di dajale parfois ñuy ket di ko si def man tamit mooy loolu aw ma lenn loolu am bis rek fay leen victoire bu neex waaw. tey su ma wax ci Tonnerre yi tey kan moo ci sa mbër. noo Tonnerre yi moom wax dëgg yàlla am um, taay si nga moom champion sama mbër la. je l'aime bien waaye. tey nga dégg ay polémique ci moom en tant que ni mu doone champion nga dégg si tonor yaa ngi dégg ñu naan takk na jaareel yaa ngi dégg ñu naan tamit da doon def ay bagage après tey yow. waaw gis nga pour man vie privée jàmbur dañ see waroon neutre quoi que jamono jii ñun nekk moment yoo xamante ne du moment ay wax. yaa ngi woon ci kaw Eumeu Sène moom. waaw ma ne gars yi dañoo war a du moment yoo xam ne kii rek jàpp ko di ko yàq parce que dépassé na niveau boobu noonu parce que loolu vie privée la bu takkee ñaar rek bu takkul yooyu yëpp nañ ko bàyyee parce que moom la choix am la quoi amaanaam na dem ba am quatre femmes yee nañ ko bàyyi mu job ku mun tamit na defal ah yee tey ci adversaire say projet adversaire yoo xam te ni tey a bëre mhm. naa la sax su limee boo dañ yaakaar dama leen a pare wala dama leen kii mais lu mun ta ñàkk moom foog ñu wax ko quoi ay booy plateau yëpp ay naataangoo leen ay yooyu noonu tu vois ay ñoom farambëri yëpp ñu ñëpp ay naataangoo leen booy yooyu noonu ay booy sam-sam yëpp booy sam-sam yooyu yëpp tu vois waaw làmb moo demee noonu quoi dañuy dabante rek waaw. tey lan ngay wax dëkkandoo yi wax euh, di leen waxati rek di leen santati di leen gërëmati parce que tamit lii dafa jafe quoi nga woote ñu wuy si la ku nekk daa bàyyi sa liggéey. sant sama mafia bi ñoom Amala ñoom Pam Modou ñoom Moussa ñoom Alice day sonn si combat sama jarbaat lay takk lii bu amee rek grâce à moom la sonn na si torop xam naa ni fajar la la yee waaw di woo santaatu ay ñoom sooro jaagal soo bi moom tamit xam nga da siy jàpp bu baax a baax ay ñoom maane ñoom ñëpp santaat waa koñ bi waa jaxaay waa Tiwaan Pël waa yëmbal waa benn barak waa buun ñoom ñëpp di sant sama sama village waa Madina Njaaj bi bu baax a baax waaw. jërëjëf jërëjëf mooy kooku ñu daloon tey mooy Doukhor champion jërëjëf.